taxaw ak yéen pour ne président Macky Sall fii du fi amee troisième mandat fii du fi nekk ñetteelu yoon candidat bu bëggee nekk candidat na dem ci beneen réew ci àddina bi waaye du doon ci senegal man Guy Marius Sagna fukki ak ci ginnaaw man maa jiite woon m bu Tambacounda buñ ci tegee fukki at ma taxawaat fii naan non au troisième mandat non à la troisième candidature lu muy tekki mooy Sénégal avancé wul dafa taxaw ci diiru juróom ñetti at tey xëccoowuñu M23 xëccoowuñu 23 juin fan laa nekkoon 23 juin 2011 nekkoon naa assemblée nationale 23 juin 2011 jëfee ko tey moo ëpp solo yéen mii nekk fii esprit wu 23 juin moom ngeen di jëfee te loolu moo am solo fi ma nekkoon 23 juin 2011 amul solo ban taxawaay laa am tey loolu moo am solo dégg nañu ay taskatu xibaar naan. depuis démb xaw barki démb dañuy xëccoo 23 juin ñun xëccoo wuñu 23 juin xëccoo wuñu m ñun li ñuy xëccoo mooy la défense intransigeante de la constitution li ñuy xëccoo mooy troisième mandat du fi am moo xam président Ablaye wad mooy président moo xam Macky Sall mooy président moo xam Bougane mooy président moo xam Ousmane Sonko mooy président moo xam xawma kan femme mooy président fii duñ fi nangoo troisième mandat fii kenn du fi nangu troisième candidature dañoo bëgg mu leer nekkuñu ñoo xam ne dañuy wax démb lii tey ñu wax safaan ba ku munti nekk président fii ci Sénégal doo fi nekk doo fi am troisième candidature dañoo bëgg muy leer loolu bu noppee dafa am solo. ñu wax ne lan mooy la fonction du troisième manda lan moo tax Afrique foo dem ngay dégg troisième mandat Guinée troisième mandat Côte d'Ivoire troisième manda Sénégal troisième manda ñaar laa ci bëgg a wax benn bi mooy président yi gën a bon ci àddina bi ñu ngi fii ci Afrique rawatina ci réew yi nga xam ne France moo leen colonisé woon président yi gën a bon ci àddina bi mooy président yoo xam ne au lieu ñu régler ñàkkum jàng bi ñàkkum xëy bi jafe-jafe ci wàllu hôpital jafe-jafe ci wàllu chômage jafe-jafe béykat yi jafe-jafe sàmmkat yi jafe-jafe nappkat yi ñu ñuy imposer un débat sur le troisième mandat loolu mooy président bu bon tey lu ñu waroon waxtaanee mooy naka la fexe ba. 54 pour cent des sénégalais mënuñu jàng abajada ay analphabètes lañu au lieu ñu régler loolu ñuy wax waxu troisième mandat li ñu waroon régler fii ci Sénégal mooy naka la ñuy fexee ba 300 000 nouveaux jeunes demandeurs d' emploi chaque année ñu leen di jox 30 000 emplois mu am cent 270 000 jeunes yoo xam ne ñii ñu ngi dee ci géej gi ñii ñu ngi dee dans le désert du Sahara ñii ñu ngi ci kaso bi. saafara say jafe-jafe chef d'entreprise yi nga xam ne 64 pour cent des petites et moyennes entreprises dañuy dee laata ñoo am ñetti at nga ñuy imposer un débat sur le troisième mandat au lieu nga xool naka ngay fexe ba 6000 abris provisoires yi nga xam ne ñu ngi ci école bi nga réglé ko nga ñuy imposer un débat sur le troisième mandat. lii mooy jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu am ñu nga xool naka ngay fexe ba ñu di importer saa su nekk quatre-vingt-onze mille quatre-vingt-onze milliards ci blé am dugub ak mbokk nga ñuy imposer un débat sur le troisième mandat au lieu nga xool naka ngay fexe ba régler le fait que Sénégal chaque année muy importer 65 milliards de produits laitiers nga ñuy imposer un débat sur le troisième mandat c'est tout simplement inacceptable